am na benn fas jéggi na ko dugal na ko si diggante tànk yi waaw si diggante tànk bi loolu tojal la bu arbi sifflé da kay dagg rëg-rëg taxaw na moo jàkkaarloog ñun avertissement pour guy gi dafa arrière oon génn saaku yi arbitre sifflé na Gouye Gui Reug Reug 20 février 2022 GFM Entertainment Group ma aussi ses félicitations arbitre sifflé na 19 heures presque 44 minutes Reug Reug nee na tekk Gouye Gui nee na tekk ñoom ñaar ku nekk nee nga tekk ku nekk pied gauche boy xool Reug Reug dafa jël volume dafa yokk poids guy gi taalal na ko loxo gauche bi jiital tànk gauche ngem boo ngem bu jaune xaw ma bu verte mais guy gi booy xool li mu takk ci ay morceaux yu verte dafa bari ñaari loxo yëpp am na morceaux yu verte guy gi mi ngi jàkkaarloog moom di wax ak moom rëg-rëg mi ngi taxaw fee di léewtoo arbitre baa ngi wax ak moom ñoom ñaar arbi nee na aca aca aca aca nambar waay aca aca aca aca nambar rëg-rëg mi ngi taxaw fi mu taxaw xam na ne ku am expérience lay bëreel moo tax il faut mu ànd ak teg ànd ak patience déglu ko guy gi fi mu taxaw la taxaw tàlla loxo gauche bi di nga xool rëg-rëg nee na teg rëg-rëg fi mu taxaw la taxaw sëriñ yaa ngi ñaan yeew yeewa ngi yeew Reug Reug mi ngi leew tool boppam guy gi taxaw na fi mu taxaw avertissement dana amaat guy gi de li mu jël ci temps waaw arbit bi day wax ak ñoom arbitre baa ngi wax ak ñoom nee na leen su ma ñëwaatee naa leen avertir avertissement verbal avertissement verbal ndeysaan arène nationale 20 février 2022 Reug Reug en face moom moo gën a ñuul mais Reug Reug tey dafa gën a ñàng arbitre arrêté na avertissement avertissement pour Reug Reug avertissement pour Gouy Gui Gouy Gui am na ñaari avertissement arbitre sifflé na waat arbitre sifflé waat Gouy Gui ak Reug Reug Reug ñaari averti Gouy Gui ñaari avertissement Reug Reug Reug Reug benn avertissement ah. Reug Reug lan lay xaar guy gi mel na ne lu def ah, flexion sigi sigiwaat ba day du ko ay jooy la koy àggale far aadi aadi dabbaxan fan mukki daadi dabaxan rek jooy. dañ daal di jooy ba ne ko ko doo ko yeggal ba ne fo ki ma ko jàngal foofu bu koy dabaxan noonu rek. ah moom li mu koy li mu koy waxee sax du noonu. non xanaa bis bu daanoo dina ko àggal. ko ba waaye mi ngi teg ay paa ci di ñëw. waaw. dañ ko jàppee comédien. waaye comédien la ci communication waaye nekkul comédien ci biir. mbër la daan tey jeu technique la daan. Ah. mbër la de ma ngay dem. guy gi nee na ko kaay. guy gi nee na ko kaay guy gi dafay dox ci maay mi xoolal ñoom ñaar ñu ngi wax de guy gi de mi ngay wax ak moom. xanaa doo leen ko jàppee nii. lii moom. ah xanaa doo leen ko jàppee nii avertissement encore. lii moom ñemewu leen ko arbitre yaa ngi gise seen biir lii de ñemewu leen ko barki sëñ bi ñemewu leen ko wallaahi ñemewu leen lii. ñemewuñ lii de. ñemewuñ ko de. ko de. laa ilaaha illallah. et puis ki dëgg la am seen guy gi. ak kii ñëw na stratégie la woon Reug Reug dem na fekk ji guy gi stratégie la woon Reug Reug sànni na mi ngi xeex Reug Reug jokkaas na ñuy xeex ci kaw door mu daanu attention wala jàppante damante ay baaraam arbitre sëgal arbitre sugal e eh, door mu daanu guy gi door na si bopp bi door door attention attention liy xeeñ attention liy xeeñ door guy gi Reug Reug nee na ko woon di nga xeex jàppante nañu ñoom ñaar bëree mbapat bëree mbapat guy gi bal na ko bal na ko guy gi bal na ko de guy gi bal na ko guy gee gi door ay uppercut guy gi dee ngaa bëre guy gi da ngay bëre daan na ko Reug Reug daan na ko. waxoon naa la tee ngaa bëre waxoon naa la tee ngaa bëre da topp xeex bi mu caxabal la daan la da nga topp caxabal bi guy gi danga nga topp caxabal bi danga topp xeex bi da topp xeex bi dafa topp xeex bi da topp xeex bi da topp xeex bi